yoo xamante ne mais dañuy def militantisme carrément et ça c'est pas normal tey journaliste ni militaire bi mel wala magistrat bi mel ko mais noonu la ñu war a mel c'est des yoo xamante ni ils sont là pour informer lu xew nag ak côté bu mu mënti xewee même couleur bi la ñu war a garder mais on voit dans les médias du militantisme pur et simple. Ah moo tax ma ne lu xew ñetti ñi ñoo ko def. une bonne partie mais mili nan la nan la des du du militantisme. mais gis journalistes yoo xamante ni <laughs> mais seen seen comportement. da ngay xam ne ñii mooy li ma la wax liberté de la presse te da ngay wax la neex ñu jàppale tëj la ñu ne non liberté de la presse ça n'a aucun sens. ça n'a aucun sens am na loo xam ne journaliste bu ko defee bu ko publier comme information dañ koy arrêté parce qu'il n'a pas le droit c'est parce que tey piliers yi nga xamante ne tey mooy sous sax la république. mais presse daf si am doole c'est pas pour rien qu'on parle de quatrième pouvoir waxuñu quatrième pouvoir si ay fo tey ñi ngi def émission ni ñaata sénégalais ñoo toog di ñu seetaan tey am na lu may wax fii nii mais mën na créer musiba donc du la neex nga wax am na loo xam boo ko waxee dañ lay arrêté et c'est pas au nom de la liberté de la presse non dafa mel ni liberté d'expression tey dafa am espace boo xamante ni ci seen politique bi c'est l'opinion nit yi am nañ droit joxe seen xalaat mais un homme politique un journaliste wa nekkoo fi pour joxe sa xalaat yow xam-xam ngay wax mooy li mu doon wax naan xam-xam du ay du ay pexe mais da wax loo xam ne ku lay déglu mu ànd ak yow mu bañ a ànd ak yow day xam ne li ngay wax nii lu layal ça c'est important mais nag dangay gis ñoo xamante ni à la limite da ngay ndax ñi ay journaliste rek il faut carrément du militantisme